dikkati naa yëngal ko sam opposition bi loolee la cour suprême def 24 heures yéeni kaay ne moom cour suprême bi day daal dina yëngal bu baax a baax ñi faree ci opposition bi moo tax it Seybani Sougou ma xam le ni élection la boo xam ni nguur gi téye na ko ci loxoom ba nuppi confisqué na ko waaye nag Macky Sall bu fi jógee juge yi koy atteel faaw ñu atte leen ku leen di attee xam tribune yéeni kaay ne ma cour suprême mane la dafa invalider opposition bi lankal leen nag seenu bokk ci élection yu janvier 2022 yi yéeni kaay bi média bi ne ma chambre administrative administrative bi lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ciy recours la daal di saytu ñaar ciy recours ñoom daal la bàyyi ñu daal di jàll ngir opposition bi gars yi nag tex tex reetaan ca Matam ak Sigicoor ñoom waa yeewi askan wi ñu ne leen doo leen bokk ci élection yi ñoom waa yeewi askan wi diggante Pikine ba Kédougou ñaar fukk ciy diiwaan duñ fa bokk ci élection locale yi source a daal di may xamal ne bu weesoo Matam ak Sigicoor yeneen liste yi nga xam ne yeewi askan wi bokk nañ ca yëpp dañ ko daal di rejeté ne leen du ngeen bokk ci élection yi turbine ne ma grande coalition gëm sa bopp it invalidé nañ ko ci Ndakaaru xamal nañ sëriñ Bougane Gueye Dany ne ko yàgg sa coalition bi du ngeen bokk yéen ci élection locale yi ci Ndakaaru ne ma Girassi du bokk ca Kédougou Maguèye Seck du bokk ca diwaanu Pikine Source A ne ma Bougane Gueye Dany du bokk ci Ndakaaru Libération ne ma Saint-Louis département Fass ak Gandoo yépp waaye Yewwi Askan Wi duñ ca bokk moo taxit Ousmane Sonko ca Sigicoor xamal na leen téeméer ak juróom fukki hectare jaay nañ ko foofee jaay ko ay turc te Mahmoud Saleh ba Source A ne ma ca Malika ñoo koy topp ci parcelle yo xam ne jaayoon na leen ko 2013 ca Malika Plage cey politique bii l'enquête ne ma tey laa lay dikkal ci diggante Barthélémy Diaz ak Soham Wardini ñaar ñoo begu ne ñoo bokkoon bëgg-bëgg dem ba tàqalikoo bëgg mairie bu Ndakaaru diggante galas gu sedd guy lay doon ak safara Soham Wardini wéeru ca bilangam Barthélémy Diaz wéeru ci ginnaaw Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko keneen ku nekk candidat ci maire bu Ndakaaru daal di addu ci tribune yéenekaay muy Pape Diop ma nga xam ne ma ngay waxee diwaanu Mbour Pape Diop ne gannaaw jël nañu Kër Massar def ko département lan moo tere nguur gi mu jëlit mbuur def ko diwaan ab région na ñëpp njiital bokk gis-gis ne mbuur de am na lépp ngir mën a ñoŋ suqaleeku waaye daanaka mbuur amul dara moom Pape Diop ne mbuur touriste yaa nga fa aada cosaan ma nga fa koom ma nga fa napp ga ma nga fa mbay ma ma nga fa waaye yorin gaa baaxul tax ba tey jii nii dara laa ne la mbuur amu ko Sénégal it li mu am li ci ëpp ay scandale la Sud Quotidien daal di may xamal ne scandale ay milliards la ñuy tudd ci réew mi waaye la ca leer bariwul looloo dagan lu toll ci benn milliard lañ leen di jox at bu yàlla sàkk niki budget waaye CREI ab juridiction la boo xam ne tous defu ko ci réew mi 1981 ak tay mi ngi ci réew mi moom CREI xamoon mel ni ku sukuraat bay bëgg a faatu Macky Sall dekkalaat ko ñu topp ci tongtongal Karim Meïssa Wade Bibo Bourgi waaye tam Tahirou Diallo ba noppee ca ñoom pare ci seen i dossier yi delluwaat nelaw bay xandoor kay ñoo amoon yaakaar nag ci OFNAC jàpp ne bu CREI yi nelawee OFNAC moom daanu ko yee saxal koy laaf mu tongtongal ñi nga wi France daal di xideen of nag a yées wala it ñu teg ko conc moom of nag Sud Quotidien ne te teg conc yooyee sàcc yi sàcc suñu alal ñun askan wi ñoo ca kontaan l'évidence yéeni kaay ne ma Macky Sall ma nga ca liggéey ba de ma nga tong-tongal ministre de la pêche Alioune Ndoye ngir mu gaaw ca liggéey ba 24 heures yéeni kaay ne ma saari président Macky Sall wax na ca nee na dal la ca bëgg ak jàmm waxtu woowu l'évidence yéeni kaay xamal ma ne campagne bi nga xam ne noonu la ñuy jaayee gerte gi day baaxul doxul baykat yi gisuñu ci seenu bopp moo Sonacos tribune ni ma réew mee doxul ci boppam le quotidien le quotidien ne booba Macky Sall ma ngay liggéey luy dox ci réew mi lu ci mel ni Air Sénégal xamal na leen ni daw heure yegg si heure loolooy tax nit ñi naw leen waaye tam yorin wu baax te ñoŋ mooy tax nit ñi wóolu leen laas ne ma moom président Macky Sall dàq na chef de protocole am daal di andiwaat beneen bu yees lan moo ko waral bés ne mbaadu coowal passeport diplomatique yaa fa jaar en tout cas 24 heures yéene kaay mi ne président Macky Sall it ma ngi ca yoonu tabb ci ay tur la ñu daal di génnee daar te ñu am xel mu dal ne ñooñee la ci Macky Sall di kenn 24 ma mooy Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Xot wala yik Omar Demba Ba laaste ma ña ngay tongtongal Macky yu fay de ay comptam saisir nañu ko ñamoom cité Touba Renaissance ñoo am jiixi jaaxa ak Macky yu fay tribune ma maître Malal Bare daal dinay andi dëggam de ci coow li nga xam ne tudd nañ ko te promoteur bii di Biram Diouf tuddoon ko ca mu jàpp ne avocat am ba mu jëloon ngir mu a kook ASPT daf koo jam baaraam ci digg ginnaaw deltu fas ko média bi ne maître Malal Bari indina nay preuve xam leen ni nag coow la du ñaar fukki million ak juróom waaye fukk ak ñett la woon te fukk ñett yépp agence ba fay nañu ko Biram Diouf te moom maître Malal Bari moo jël chèque ba jébbal ko Biram Diouf la des kay mooy Biram juuf fay ko te boobaak léegi tëlee na jot ci xaalisam le te mooy yéen kaay ne ma tey laa leen di fàttali jamono ak infirmerie yi nga xam ni ñoo nekkoon ci biir l'école yi ku gaañuwaan dem ca infirmerie ba ñu faj la te jarul dem l'hôpital loolee soppite am jamono dox ñu dindi ko fi te moo day lu baaxoon la ci daara Mbengue ci laas yéene kaay ne damay artu ci combat bombardier Balla Gaye bi képp koo xam ne ñëw nga fa def fa naka su noonu daanu dal sa kaw tribune yéene kaay ne ma ki dal suñu kaw moom moo di omicron ñeenteelu vague bi daal dina judd ci réew mi professeur Mbuub ci réew mi quotidien ne moom omicron day raw na delta ci réew mi professeur Seydine lenn rek moo nu ci mën a muccal xanaa ñaqu ji rek ñaqu daal mooy tax ñu mën a mucc ci coronavirus bu leen fàtte ni mi te day faax parce que dafa bu nekk sa Kolda daf ko def ab jàngalekat la. waaw def vidéo bi wane condition ya nga xam ne ndongay CP la ñu ne. di di di di jàng di noonu la ñuy jàngee vidéo bi matul sax euh, euh, matul sax une minute xale yi seppee la ñu ne ay briques la mooy nekk seen table banc birigu birigu ciment yooyu mooy seen table banc. fa la ñu ñu toog ci suuf di jàng. il paraît ba mu defee vidéo ba pare dañ ko dàq. relevé de ses fonctions. gis naa ko ci euh, seen web reprendre nako. il paraît waa QCMC également xaw ñom ñi ngi porter loolu dàq bi mom. Mhm. Dak bi mom décision bi jógewul ca kaw a kaw. kon ki nga dàq.

soxla nañu ku ñu jàppale ndax élèves yi jàng ku sañoon kay sa doom kay bi dem di jàng du toog si basang wala du toog si suuf. du jël a seen ay kayam di ko teg ci brique. loolu ñëpp xam nañ ko loolu lu ñaaw donc bu ko defee est-ce que jar na euh, relever de ses fonctions loolu il faut ñu vérifier information. oui oui il faut il faut traiter moom ah, ah, pour laaj ko. voilà après ñu jël numéro am comme ça moom su ko jaree suba. ñu woo ko en direct moom yaa si wax ak moom. fu ñu koy woo xanaa ah, waa tës ñoo koy woo. éducation éducation

ñu door yéen kaay ak groupe des médias la tribune mu dikk ci eh, ni nga ko waxee woon sànq Yacine ñu waxtaanee ko mu di cour suprême eh, jot na nag eh, saytu ñaar fukk ak ñaar ci ay dossiers yu nga xam ne ni recours la woon ku jéggi dugaloon ko waaye Yewwi Askan Wi waaye nag xam nga au total 45 la 22 la ñu jotee vidéogum si 22 yooyu waaye Yewwi Askan Wi ñaari ndam képp la ñu si am mu mel ni kon nag li si des yëpp vingt si 22 recours yi mi ngi féete ci beneen wàll gi mu mel nit euh, sa Matam la ñu fa waxoon teg tegaat nañu ko ca suuf naka noon it sa jigéen soox sa Pikine li si ñoo xam ne dañu ko rejeté woon ba tey dañu wéy di ko rejeté naka noon it sa Kédougou ñu ngi ko doon waxtaane sànq ak Girassi euh, coalition gëm sa bopp Bougane Gueye Dany moom mi nga xam ne wàcc woon na ci terrain bi tàmbalee def ay karabaanam euh, jël ay otoom dugg ci mbooy mi en tout cas lu mu ci manti doon fii ci doon Dakar commencé woon na doxantu bi ah doxantu dugg ci gox yi ngir nag liste bu ñu ko validé rek mu wàcc si euh, campagne bi waaye nag liste bi nee nañu dañu ko rejeté ndax euh, Bougane Gueye Dany dana dana wéyal doxantoom am déet euh, li ci kanam rawuli gët listam dañu ko rejeté dañu ko invalidé fii ci diwaanu Ndakaaru am na yeneen recours comme ni ko Birahim waxee bu ko neexee na dem seeti yeneen recours yooyu Pape Diop bokk gis-gis lu mu bëgg moo di diwaanu Mbuur ñu def ko nag ab région ñu def ko uh-huh. diwaan uh-huh. Uh-huh. jot na ko ñu def ko waaw région moom moom mooy benn département bu am seize communes. Hmm. seize commune la am. kon nag jot na. am na ci ay communes yoo xam ne ay caajaay ay ngeexoox ay jas mais jas xam nga ni boo ko defee. yaatu na nag jas dafa yaatu. yaatu dafa yaatu. jas ah jas dafa yaatu Sindia dafa yaatu. c'est c'est il a parfaitement raison la mën a def Kër Massar. Mhm. Euh, mën na ko département. mën na def Mbour région mën na def Mbour ab région ñu ñëw ba tey ci yéen a kaay groupe ñëw ci liggéeykat yi nga xam ne moo nekkoon dem si yàlla sot xàkk ñoom nag ba léegi li ñuy laaj moo di juróom-ñeenti milliards yu nga xam ne dañ leen ko yoreel ngalawaay nañ leen ko jox nee nañ màjjaaluñu maajuñu saraxawuñu ngalawaay nañ leen jox li nga xam ne moom mooy seen seen seen seen juróom-ñeenti milliards yooyu ndax bëri na woon na si ñu nga xam ne ñi ñoo fa nekkoon ñu si bëri faatu nañu fu mu nekk seen njaboot ñooy dox ginnaaw topp ci bor bi du ñàkk nag euh, njaboot googoo tamit dinañ si topp topp topp ndax donante la dañ dem bay donn bor bi juróom-ñeenti milliards yu euh, ex travailleurs yu Sotrac moom la ñuy laaj ba léegi nee nañ ngalawaay nañ leen ko jox troisième dose bu vaccination boo meetu kon danañ ko euh, pikiir askan wi askan wi dinañ ko jël ndax nag dëggal na ko moom yéen kaay bi nee na fii ci Sénégal dañ ñeenteelu vague dugg na fi donc ñoo ngi ci quatrième vague bi euh, ngallaawaay bu ñu wax rek naan euh, fu mu nekk nii euh, quatrième vague bi nit ñi ñàkku ñu mobilisation la ñuy bañ kon nañu en arrière élection yi bàyyi leen ñu rek dégg ngeen ay vague woo ak lu mu ci manti doon nañ nañ tëgg suñuy mbir ndax dañu ko soxla. ñu ci Vox Populi. <laughs> nguurug Sénégal ba tey <laughs> Yacine looy dee. maam ah. sañse nga nag. ah jërëjëf merci da nga naan sañseeti nga mm. <laughs> Vox Populi. Uh-huh. cour suprême dafa ñëw ci recours bi ak nag euh, yi yi ñu rejeté woon mu ni kon euh, dañu ne état bi gagné na de ndax 22 euh, la woon ñaari képp la nga xam ne moom la ñu waa Yewwi Askan Wi daal di gagné Déthié Fall moom nag yëkkati na kàddoom audience yi dafay wéy ndax nag 30 décembre ñu ngi yaakaar ne kon la te des ci ay dossiers ñoom dinañ ci am ndam liste Yewwi Askan Wi euh, sa euh, Matam dañu ko validé xam nga ne foofu dañu ko rejeté woon kon nag mujj nañu ko validé sa Pikine ñu ngi ko doon wax sànq Magay Seck euh, tête de liste bu yee Yewwi Askan Wi ca Pikine ñoom it maire ba futti la ñu def ndax démb doon nañ sax yëngu-yëngal ñoom waa Yewwi Askan Wi sa Pikine waaw jot nañu wane seen bopp ñoom waa Pikine nee nañu nag mbiri du demee noonu comme na nag dañ leen dañ leen baj mbéjum politique ñoom kurpeñu politique la ñuy tontoo 80 euh, euh, euh, de la population sénégalaise a été en contact avec le virus virus bi jot naa mbëkkanteex moom ci mbedd mi Yacine Seck euh, jot naa mbëkkanteex moom ci mbedd mi ku si virusu euh, euh, xemes moo ko wax waaw waaw loolu de boo jot nañ laale jàngoro ji loolu na ñoo xam ne daje nañoo xam moom ci bitig bi Birahim te seen wax comme comme moom day dox rek moom SDF la salaamun xawlan min rabbi rahim comme Birahim SDF la sans domicile fixe donc moom xam naa mbëkkante naa jàngoro ji salaamun min rabbi rahim moom moom ma naa SDF waaye yaa ngi wax mu guerre Iran Irak Mambay euh, Mambay dama la dalal sànq ak dalal bu neex bu rafet. bul indi benn guerre sama diggante. bu daal ni ma benn guerre de xam naa fa nga mbëkkanteex man xam naa fi nga mbëkkanteex jàngoro ji virus bi man xam naa fi nga mbëkkanteex moom. daa mbëkkanteeg virus. waxul kii xoola dafa mbëkkante mbëkkante waat mbëkkante waat ak virus. kon de fii la ko mbëkkantee. <laughs> moom dafa dem ba virus bi. virus bi moo nekk kii daal daa ko jëlee sa passé. salaamun xawla min rabbi rahiim. Euh, El Hadj moom virus bi daf koo ragal hélas moom brise bi dafa. dafa duggee ci moom. parce que moom ndax am na produit yu mu yor yoo xam ne. moo koy yëg ci tamit yoo xam ne. hélas doo ko wax pour comprimé de. moom xam nga produit yu mu yor. da lay wax contre virus la contre parasite. écorce écorce. xob yi rek. njambaan bi mu yor njambaan bi rek. contre pour a bët. contre pour a bët. man daal xob yi rek. ak loolu. waaw waaw ndox si ji. njambaan yi hélas yow. non ku fi ku fi Covid rek woo ko. hélas xam nga lu mu lay tuddal moom. Ah. xas. reen euh, du ca yem de du ca yem dana xas virus bi ba virus bi dem yoon dana ko xas ba mu virus bi lay jàkkaar lool moo tax ma ne virus bi daf ko ragal boppam ragal lépp ci peuple box wal ko quotidien wal ko quotidien dafa ñëw ci rejet russe yi ba rejet yi nga xam ne jot naa am ci recours yu saisine yu CEDEAO euh, wala sax euh, rejet recours yi waaye it am na beneen possibilité muy saisine yu CEDEAO ëtt attakaay yu réew Afrique Eh? opposition bi tam mën na abaat ay kàttam yu mujj jaare ko foofu président de la république Macky Sall dafa mel ni dàq na euh, chef de euh, protocole am de euh, fi mu nekk nii dàq na fa daal di wut keneen tataay la circulation terre bi xam nga ne terre bi tàmbali na waajo de boobu dina métti kan ki mu dàq si chef de protocole président rek protocole président bi ñu dañ ko dàq nii après xanaa day dem feneen dina am leneen moom. ah demagul fenn waxaguñ ko fenn. lu lu tax mu dàq. mais est ce que. affaire passeport diplomatique loolu lañ ñëw. loolu la journaux euh, que affaire Jibril Ngom bi tamit parce que photo fa nga xam ne fa le président. toog génn ko fànn ca biti. waa léegi photo photo loolu la. loolu kay coow protocole ba la ka fa dugg te na fa jël ko fa dugg bu nekkee mënalu ko dara da yoo xam nga fa dugg fit la am. fan la ko dara fan la ko photo Eh, bon le président a fait un choix aussi parce que comme on dit je euh, suis nommé au poste civil comme militaire. êtes hmm. le chef de protocole D'accord, de Denyuneni.

ñoom ñoom tata yi. gis nga euh, euh, ñi war a jógee Tëngéej di ñëw daan jël tata ñu bëri nee nañu mën nañ jël TER bi bu ñu wàccee si bus yi euh, bu ñu wàccee si arrêt bi ci fii terminus si TER bi. bis kii nga fa. Dakar dem dikk yi ñoo leen jël yóbbu. non fu nekk lay ku ci man je pense que mais taxi yi daan jóge tëggee ñooy gën a souffrir. ci yàkkamti ba toj sa ndaa. bi hmm. nga bëgg naan mu lay të. na. Hmm, doy na waat de loolu waxin la de. dégg bi de doonagul solution ci transport. dégg dégg la laaj de waxin la de. seeraay gi rek waxuma la ko dara waaye. Hmm? yow boo demee boo demee journal yi ji jam ñaa jam ñaajo ñu fay la trois mille cinq cent nga fay deux mille cinq cinq cent yi looy dese dépense. teer bi bi doo ko dugg. teer bi te tata ba yegg sa kër. ba yegg fa nga jëm. ah, ah lu mu ci man di doon teer baa ngoog euh, teel yegg reposé noonu la ko Moussa Aaj di tuddee teel a yàgg teel a yegg mu dëkk Moussa Aaj Agir. Moussa Aaj waaw Agir. alors euh, quotidien Sud dafa ñëw ci scandale yi nga xam ne dafa répété ci ay milliards yi nga xam ne ay détournement lañ koy tuddee saa su ne. Euh, CREI yi nag ñu ko si joxoñ baaraam di laaj ndax amatina njariñ sànq maa ngi doon maa ngi si doon wax CREI yi euh, xaw ko joxaat lex of nag ndax ñoom ñooy def rapport yeex yooyu. ñu ne na CREI yi moom gannaaw ba ñu ko fi tegee ba léegi mbiri dossier Karim Wade bii ba Bourgi. Tahirou Diallo su la gëj xam fu Tahirou euh, euh, euh, CREI yi féete ndax bëri na ci ay dossiers yu nga xam ne ni tegoon nañ ko si loxoom te France daal di xëddeen Marie Xemes def na bilan li nga xam ne moom mooy mbas mi fii ci réewum Sénégal nu mu fi toll Antoine Diome mu mel ni kon am na ndam ñaar fukki yoon ci kanamu waa Yewwi kan Wi ndax 22 dossiers la 20 yi ñoom ñoo am ndam Yewwi Askan Wi am ñaar donc kon Antoine Diome dooragum na 22 noonu noonu lañ koy waxee 20 deux waaye Yewwi Askan Wi Antoine Diome am na vingt Yewwi Askan Wi am na deux ñuy xaar remontada bi nag peut-être moom mu am ci yeneen dossiers yi nga xam ne moom remontada bi kay ca urne ya lay amee nekk si urne yi lu mu ci man ci doon pour le moment Yewwi Askan Antoine Diome dóor na waaye Yewwi Askan Wi vingt deux foofu la ñu euh, tolloo remontada bi urne ya am déet li ci kanam euh, euh, raw li gët ñu dess ba tey ci li nga xam ne rek moom mooy yéenekaay yi ak l'observateur adresse à la nation président Macky Sall dafa mel ni dafa xoolaat euh, doxalinam ak tooginam ndax nag nee na bii la yoon du nekk euh, euh, amul face à face avec la presse du jàkkaarloo taskatu xibaar yi. Euh, euh, dafay def discours am rek pare si am na ku tànk ku daal di def commentaire naka naka def audio ne partagé leen ko. <laughs> foog nga dëgg Sénégal fii kenn mënu fee stressé normal nee na naka def audio comme amul face <laughs> ku am connexion déglu ku amul connexion bàyyi mu dem. def comme Youssou Ndour. partagé leen ko. partagé ki nga xam ne nag moom. Ah. da léegi day laajte France booy dugg terre bi yan yëre nga war a sol. dafay. laajte na bi comme ay France ak yooyu la am. waaw léegi mu ne boo. booy dugg ci terre waaw booy dugg terre. léegi yan yére nga war a mën a sol pour dugg ci biir. <laughs> comme da nee nañ ku gàddu ay jën doo fa dugg. ku yoon dugg doo fa dugg. ku sol tenue bu xee. non mais doo fa dugg. non mais doo fa dugg mais terre bi war na am ay bagages. war na am fu ñuy dugal ay bagages. fu ñuy dugal ay bagages. te am na moom ci kaw. tey tey tey mais. mais il faut que bagage soient bagages chute buy def bagages yu ah, dans le propos du ministre Mansour exclure certains sénégalais. Ah Dakarois mm-hmm. de ce terre. Je suis man C'est mon métier menuisier ma yore sama même bu sama samay outils yi dama def ci sac bu buñu sécuriser mais sama tenue bobu may xeyé sama cœur mom la mës démé liguey nga ne ma dédé da nga sa tenue bi dang kay koy simmi def ko ci mbuus wala nga gaddu ko bo démé ngay dogo sol sa tenue ñële ci France bo démé euh, ca seen i euh, TER ak seen i RER ak seen métro la ngay sol pour liguey mom ngay sol dugg ko ak métro dem fa ngay liggéey boo wàccee jibaat sa biir cœur mais euh, je pense que waxin bi am na nuñ ko war a mën a defarale euh, defaraate ba exclusion yooyu mhm. du am ci loo xam ne ñëpp a ko bokk du xaalisu Macky Sall du xaalisu Mansour Faye c'est l'argent du contribuable sénégalais mis dans un projet pour les sénégalais voilà yaakaar ñu jeexalee ak nag da leen mat a fàttali de <coughs> vingt quatre heures di leen fàttali ni du seen xaalis de wala moomoo leen ko ci am solo la loolu am solo la yooyu yëpp ay émotion la maam yooyu yëpp ay émotion la yi dal sénégalais yi mhm. alors que ñu li ñu gën a soxal nous, ñu l'air ñu terre bi lu ko milliards c'est 15 wagons lu ko cest à la question bi toujours lay mhm. question bu am le député du peuple mom lay laaj lu lu terre bi ba 1 milliards milliards question est bu am solo moy kan premier ministre 24 quatre heures wax amna ñent ñu mu tan ñent Bougane ak Guirassy ay mbokk lañ xana Bougane ak Guirassy dañoo niroo de ah dañu niro wa wax nga dëgg nak de niro nañ Guirassy da dàq rek sen kanam yi gàtt na <laughs> et puis Bougane xaw ëpp kanam touti Guirassy mais sen kanam yi na de ku dàq Guirassy <laughs> mo dàq <laughs> no est-ce que ta ay ver kasse moo tax xeyna na xëy na est-ce du mu takay ver kasse xeyna am na niro nañu de no dañu niro am nga niro nañu torop ñeneen ñeenti doomu pend naar Amadou Ba ba tey mën naa nekk premier ministre de Abdoulaye Daouda Diallo mën naa nekk premier ministre mën naa nekk premier ministre ak ki ñuy wax Omar Demba Ba ñeenti doom yi pendanaat yi la yéene kaay bi tànn ne euh, ñeenti ne premier ministre du génne si ñeenti. Abdoulaye Daouda Diallo de mënoon xam naa. Birahim moom mi ngi wax Mahamadou Boun Abdallah Dionne. sama sama lecture mais mën nañu andi sax Ismaïla Madior Fall waa Tëngéej pourquoi pas.

c' est la question. nar a jub rek si mënti doon mais Mame Mbaye euh, Aïda Seck nee na sañse nga sañse nga. Eh, Aïda ma koy nuyu bu baax nuyul ma Aïda bu baax. Aïda Seck ak Aïda ma lay nuyu Aïda Seck ak ak sama maman nu mu tudd. maman Khady Badiane. maman Khady Badiane Sakura. maman Khady Badiane Sakura waale. voilà Mamadou Kopa nag borom ñi ñaaxee na. <laughs>